salaam gaay jaar na bu baax a baax tey maître El Hadj lañ amaat maître El nag am na lu mu waxati Ousmane Sonko waxati sax laay wax ndax moom chaque jour moo ci Ousmane Sonko gars yi dem nañ ba naan ko yow fan si Ousmane Sonko nga moom daa fan Ousmane Sonko ci pet gars yi ñu dem déglu ci maître El Hadj Diouf après ñu ñëwaat léegi léegi. kooku di def grève de la faim ndax bañ prison ni day dee dégg prison dee moo ko gënal bañ naan léegi mu dee avocat bi léegi mu dee léegi mu dee pour la. kooku bu fekkee dañ ne ko dañ lay amnistier lu daw du fecc xam nga nu ñu ay dof nu ñu ay ndoxandoom bu ñu teg ay ay ay naba ku ku dee jaral prison jaral dee ngay grève de la faim ñu jëlee la ko kotaan yóbbu la principal pendant des mois nga tëdd chaque jour ne léegi mu dee ñëpp di ko ñaan di ko ay Sonko arrêté grève de la faim bi yéen a ngeen fàtte boobu xanaa biñ négocié ba génne dañu ne non ñun demandé wuñ dara ah. ca doomu dañuy respecté intelligence nit ñi ku génn koo xam ne prison jaral na ga ngay def grève de la faim ba dee ñu suul la ba ñëpp di ñaan soo ko di woo ngir yàlla arrêté li bala ngay dee ñëpp xaritam ak ñëpp ak sëriñ si kooku bu ñu ne ko dañ lay amnistie génn dana taxaw naa moo demandé wu ma dara bëgguma génn nañ topp danga du dëgg billaahi du dëgg ñi ci dañuy ngan ngan on a vu ce jeune là Ngagne Demba Touré bi mu foogee ni ñëpp bàyyi bi moom ci la bokk ñëw rek taxaw ci benn oto taxaw taxaw ci kaw Grand Yoff di défiler am na wala amul di défier di narguer la justice bi ñu ko bëggee yóbbu prison bi nga jàppee mandat d'arrêt bi ko yóbbu ko après ci ëllëg ci juge bi pour mu xool ndax da koy placer su mandat de dépôt wala déet mais greffier yi nga xamni yi bëri ay nafaq lañ. Mm. dem waaw ñoo ñu ay naafeq lañ dem ci bureau juge bi di juge bi diko ko yekk lu mel ne kenn du ko yóbbu prison. di prison prison maçon yek avocat yek solidarité de corps. ñepp war de prison boo tooñee. greffier mooy kan ba bu defee ñaxum mm-hmm. ñu oko ko mu daw nek tapet. ci bi nu bokkaloon wax ci bon jooju naan wacc wàcc taal dëkk bi. njëg di bàyyi dajeel mu kontaan ba ñëw taxaw di défilé naa nii ci oto bi ca la ñu dee eh, gaa yi nii yeewu rek gaa yi jëli ko parce que seer la dof laa mais ñooñu buñ taxawee ne bëgguñu woon amnistie waxuñu dëgg billaahi wallaahi talaay ko nee naam soo ba nañ bàyyi gaa yi ba pare bu bëggee Macky Sall bëggee ci euh, bi neex dialogue bi ñu ne ñoom duñ dialogue bi dañuy def concertation comme dañu ne si doon dialogue bi Khalifa Sall demon wala di nekk ay nafiq Khalifa dem dialogue bi ñu dakk ko rew mi euh yéewi ndax négo dem na négociation toog na ñepp toog ñu def dialogue mu ñëw wa yeewi diko ki boy ko diko yuwo ci mbitig gi xam nga après gi dakk para jom ñoom nit dialogue rek ci suuf comme tour dialogue bobu dañ ci dakk Khalifa ñu nek concertation non nous sommes pour la concertation on n'exclut pas la ni maître. il nous prend il nous prend pour des demeurés ay dof lañu waa ah. fenn nañ ba que ah. xam nga lu tax yow diffamation. Mon amnistie. les les les les infractions correctionnelles et criminelles commises durant les manifestations politiques de, 2021 à 2024. est-ce que diffamation manifestation la. d'ailleurs. fait un product. est-ce que manifestation politique comme nous nga nit ñi dañoo bëgg diffamation une infraction qui découle de la ba ne euh, euh, euh, ci ay appel jaajëf jaajëf gars yi maa leen di sant bu baax a baax day leen seetaan vidéo yi di abone di liké tey nag maître El Hadj Diouf nag moom lañ indiloon tey déglu ngeen bu baax a baax li nga xam ne loolu la wax maître dafa tardé quoi dafa biddanti moom xamul ne film bu jeex na bu yàgg moom ay tagaar lay seetaan quoi mais film bu jeex na bu yàgg chef de bande bi dee na Macky jeexal na tàkk quoi affaire bu jeex na maître El Hadj nag dafa yaakaar ne film bi jeexagul quoi day soo a commencé man maître dafa ma jaaxal quoi maître daal mënul mënul toog ci waxtaan ba dem te tuddul Ousmane Sonko quoi waxuma laa tudd sax mais débat bi yëpp ci Ousmane Sonko la koy concentré man maître loolu moo ma jaaxal ci moom quoi démb rek dégg naa ay nit naan ko yow da ngaa fan Ousmane Sonko xaw ma pa Pape Sidi xaw ma kan moo ko waxati loolu la naan ko yow mënoo toog fenn bu jóg. su commencé Ousmane Sonko jeexalee Ousmane Sonko loolu mënul nekk ci maître El Hadj man loolu moo ma jaaxal quoi maître comprendre ne jeex na quoi instant bii nii lépp naay saat na quoi instant bii nii affaire jeex na lépp loo xam ne tegoon nañ ko Ousmane Sonko jeex na tàkk quoi toppee wuñ ko dara deful dara dossier yi nga xam ne ñoo ko doon toppee yëpp dem nañ boo xam ne kii nii nitu dëgg la kii ci dëgg la doon xeex kii ci dëgg la nekk gars yi dem nañ ba ne Ousmane Sonko mii daal nañ ko bàyyi ak yàlla quoi. xam nañ ne moom tooñul kenn dañ ko doon tooñ waaw yàlla moo ko setal nag avant gouvernement beeg Macky Sall di ko setal ak yooyu noonu yëpp avant ñu koy setal yàlla moo ko njëkk setal bu baax a baax ak peuple sénégal yi nga xam ne bëgg nañ jub bëgg nañ ànd ak ku jub ñun yàgg nañ wax ne Ousmane ngoo deful dara yàgg nañ ko wax moom sax yàgg na taxaw naan fekkee ne dossier bi ngeen yaakaar pour éliminer ma ci euh, présidentielle yi da di nax seen bopp newoon na du dossier ma ko Adji Sarr lañ koy tëjee ndax loolu mënul nekk quoi dossier boobu noonu effacé nañ fàtt gars yi fàtte nañ ko waa APR fàtte nañ ko quoi ñoom fàtte nañ ko xaw ma nag waa ñoom Ousmane Sonko fàtte nañ ko ndax mais buñ ko fàttee tamit waruñ ko fàtte quoi ndax dossier bi dafa jur si dëkk bi loo xam ne jaaduwul quoi dossier Adji Sarr Sonko lu jur ci dëkk bi kenn xamul lan la quoi dossier mënul jeexee noonu foog ñu toppaat ko quoi maître El Hadj Diouf nag damay ñëwaat ci moom rek. mom ñew na ci Ngagne Demba Touré ñew na ci Sonko ñew na ci Pastef non ki barki al maître gëm na né fu muy jéxalé politique am dina mujjé ñew ci Pastef quoi ndax da fan boy yi maître daa fan booy yi billaay <laughs> man bi ñewé ci Ngagne Demba Touré rek la daanu quoi maître mom benen affaire la comédien la comédien la day man moom chaque jour damay bëgg mu génn di wax quoi damay bëgg mu génn di wax ndax man mom daf may bëggal quoi donte day xass fi mo farmé tamit xam naa ne lu muy wax du dëgg xam naa li muy wax dara amu si mais damay kontaan quoi ci di ko dégg muy lépp euh, day wax fàtte wax léeboon nag buy wax mais grawul quoi baal nañ ko ko lépp lu mu wax ci Pastef ak Ousmane Sonko ak gars yi du dëgg loolu ñëpp xam nañ ko quoi moo tax ñuy sawar ci di ko déglu waaw moom chaque jour daal moo ci Sonko ak ñi ko jege mais daal amul beneen programme yéen gars yi kañ ngeen gëjëg dégg kan ngeen mos a sax laay wax kan ngeen mosa a déglu Me El muy wax ci leneen quoi pas Ousmane Sonko Pastef muy wax ci leneen quoi ay ambition am wala ci dëkk bi li muy wax quoi comme gars yi ñuy wax ci dëkk bi pas wax ci moom conférence de presse ak lu mënti woote ñu invité ko conférence de presse lu ne Sonko rek la fay nekkee bi muy wax gars yi programme mu ne bu nekkee président programme bi nga xam ne moom la indi woon moom programme am yépp ci Sonko la ko concentré nga xam ne kii nii moom dafa jeexal ci Ousmane Sonko tàkk dafa topp Sonko bu jeexal quoi amul benn programme programme am yépp Ousmane Sonko la maire te ngaa wuti beneen programme bàyyi Ousmane Sonko comme ni ko yàlla def nga def ko noonu quoi nga nangu dogalu yàlla quoi nga nangu wala yow dangaa nangu mais ngay siisu non maître daal jaaxal na ma trop tay mom duma la waxal wax ju ñaaw duma la wax dara waaw dama lay féliciter rek waaw yow mom gëm na né yow yaay gëna jaaf ci liggéey bi sax déggoon naa benn maaraanaan ñiy xeex Sonko ñoo koy mujjee fal yow bëgg a mais mère ela djou mom mo ci yoon bobu bu baax baax mère jappal baña bay li ngay def noonu baax na torop del critiquer rek ñun ñey gëna bëgg Sonko deng nga day tax ñuy gëna bëgg Ousmane Sonko gaay yi na leen bu baax baax ma leen di sante di leen gëreum ba ci beneen vidéo gaay jaajëf